waa salaamaaleykum mbokk internet di Diégo parle Fouran nuyu naa leen ziar leen ah, di wax ñi soog a bees seen bi nañu ñëw abonné activer colos de notification bi te aimé vidéo yi te di ko partagé te ngeen di ñëw ci commentaire yi di wax seen xalaat ak seen gis-gis waa gars yi dañu ñëw wax ah, ci Jonathan yi limu wax ci franco sénégalais bi di boubacar camara moom nag mën nañu wax que ne boubacar camara daf ko bett ndax te histoire bi nga xamante ne nar ko nar na koo def ngir quitté li nga xamante ne mooy clubam nga xamante ne formé muy olympique de marseille ci bu saison bi jeexee moom jonathan mac hardi nag pour ñu ko xamul journaliste la ak consultant foofee ca rmc sport donc moom jonathan mac hardi mi ngi wax ci déclaration bi mu defoon foofee ca rmc sport di wax que ni euh, Boubacar kamara dafa war a roy ci ki nga xamante ne mooy Samir Nasri comme ni mu defee woon bi contrat di jeex foofu ci Olympique de Marseille mu prolongé contrat ndax di euh, waa Marseille mën a laal tuuti si xaalis bu demee bañ kay euh, ba muy dem. mi ngi wax que ne Boubacar kamara fekkee xaalis rek di nga ko am club bi nga xamante ne moom nga nekk depuis bi nga nekkee xale ba léegi yaa ngi ñëw ci stade bi. bi nga nekkee xale ba léegi sa papa mi ngi lay indi ci stade bi ci club bi nga nekk fi lañ la formé. yow marsay marsay deug nga ya, yow bubakar camara neena ville bi nga nek muy marsay dang ko xam bu baakha baax kon neena inspire toi de samir nasri neena nga inspire wu ci samir nasri comme nim ko defé won bi nga xamantene contrat bi jaxna fofé ci marsay mune ba legui ni jemal rek jemal astuti rek nga d'accord ak direction bu marsay nga prolonger sa contrat nga don gentleman ndaxte bu démé bañ lay transférer ñoom ñu laal dara ci tuuti xaalis ndaxte nga prémettre club bi ci difficulté financière yi nga xamante ne nekk nañ ko ñu gagné tuuti billet ci xaalis. moom Jonathan McHardy mi ngi koy wax que ni club bi di Marseille fi lañ la jàngale lépp fi lañ la former fi lañ la xamalee ba léegi mu ne ko club bi moom moo la lancer mom mo la jox structure bi nga xamantene am nga ko tay ji mom mo tax tay ji nga nek titulaire indiscutable ci club bi di marseille mom mo tax tay ji nga meuna imposer ba club yu bari di la soxla ngir bëgg la jël légui mu nan ko club bi nga nek ni tay ji pour quitter ko xamal ne mom mo tax xam sa polyvalent jouer défenseur central man nga jouer milieu relayeur man nga jouer li nga milieu défensif donc ba mu Marseille gi nga nekk daf apporter lu bari bari bari ba tax mom mo tax nga don joueur bi nga actuellement xam qualité ci monde entier donc mu ne ko yow Camara nga def ngir permettre Marseille mu jël dara ci sa transfert mu ngir permettre Marseille mu régler ay difficultés financières yi nga xamantene nek nako kon Jonathan McHardy mom dal mi ngi conseiller Boubacar Camara mu def comme Samir Nasri mu jema jappalé club bi di Marseille mom Jonathan McHardy lolou la wax ci ki nga xamantene moy Boubacar Camara donc lolou la leen leen bokk yi dina wax continuer de vous abonner activer la cloche ngeen aimé vidéo di ko partager jangene jeuf